waaw wala nga def final poids léger ndeysaan diggante ordinateur Nawduru booy séeréer Touba Xadama final drapeau bi ndaw bi loolu démb la woon ñaari Nyari yooyu dem final diggante ordinateur moo def tent bi ci bopp bi ngemb bu weex boy séeréer moom ngeen jàkkaar lool waaw waaw fii

Bongaan sosok, mbër siyaar nañ la. fay naa la général. naka waari. waari ngi rek. troisième final Papa Ngane successif. waa gis nga. Palado Sadio Ga fii tay Kër mbuk waaw jël rek. ñoo ngi lay siyaar mbër. jëloon naa la siyaar lu bëri. loo ak looy wax encore. di santaat yàlla rek. Wow. Edan daan tam ñu baatu. waaw. dëgg la. dara yokkute fa mayu. te jot na faa moo info. dëgg la i mais gid ma sant Yàlla paax noonu la gid naa supporter ke mi koy naka yow gid naa man na paax keke ref adna quoi waaw mais sa diggante guy gi sa diggante guy gi lan la li ngeen bëri bëri na lool yéen ñaar bëri na trop guy gi sama doom day la ndeysaan bëri ngeen lu bëri yéen ñaar bëri nañ lu bëri bi ñu nekk ay xale bu léegi dañuy bëri waaw yaa ma gën a xam ndeysaan mais c'est le sport quoi waaw waaw waaw loolu la leen ko si fair play rek waaw loolu la ngay bëri final xam nga ko sële bu ndaw nga am final non xaw ma ko xam nga ko ah du la may dara de non kii maa ko ah maa ko ëpp xam-xam yaa ko mën yaa xam-xam loolu ci kanam lay leer waaw incha waa Ngane ak ñi lay bëggee waa Ngane waa jas gaay yëpp waaw Sénégal waaw sa supporters yi supporters yëpp képp kuy bëggee Pape rek wala Sokh rek maa ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaan jàmm foo nekk nag xaro le ka fogole sereer wena mbudang simna den rek simna grand ami waaw wena ndam tam mi mbodna ci encore wasima den gymnase Poter kay fo mafia ne kay yonta waaw ngor kay waaw aca bonne chance mbir bu wér sel bu ndaw la waaw moom la waaw dégg naa la de tawfiq alhamdulilah jóge Dakar ba Saloum Kër Mbuk waaw gis nga comme taxaw final yàlla ba looy wax waaw di kontaan rek xam nga lu yombul quoi Dakar ba Saloum nga ñëw finalu sant yàlla rek ki nga tase final xam nga ko waaw Papa Ngane ñu ngi doogay tase nag xam naa ko yéen ngi soo a tase waaw ñu ngi doog a tase loolu la ma wax waaw loo waaw bëre rek comme dab lu ñu yàlla may bañ agsi final moo la mën moo la xam-xam loolu la ma wax moo la mën moo la xam waxu mbër la rek ah, loolu lépp leer rek incha allah ah. waaw di sant sama sama tons bàyyi ma benn yoon Babacar Faye Sika Mbaye di ko sant baax Tafa Amdi xam nga bi mooy sa première finale non non bi mooy sama quatrième finale. ci saison bi saison bi waaw. am ñaata drapeau. ma am trois drapeaux. trois drapeaux benn waaw. Ah, loolu ni baax na de mbër. waaw waaw lan ngay wax say supporters ñi di sant rek sama waa groupe fans club ñu gën maa jàppale bu baax a baax baax di sant comme ni ma la ko waxee sant gaa yëpp xam nga gaa yi nga xam ne su jóg di kontaan ci ñoom Saal Xaar maa ngi koy sant bu baax barke Serigne Touba kooku amul lu ma dul jàppale guddeeg bëccëg. jaajëf Sakho di ko sant bu baax a baax. bonne chance gaa a. combat ba final la arbitre arbitre sifflé na combat ba final diggante Papo Ngane Soso ak a bu Ndaw Papo Ngane nee na ma maa ko mun maa ko xam-xam Sele bu ne ma loolu waxu mbër ma leen ci kanam leer aca arbitre sifflé na combat ba Papo Ngane Sele bu Ndaw 11 décembre 2022 waaw waaw Papa Ngane moo génn guy gagné demi-finale par point Seul bu ndaw daan Lamine Dieng liggéeyam final baa ngi noonu Nawdourou moo daaru final poids léger yi Boy Séeréer Touba Adama moo ko daan waaw waaw final poids lourd Papo Ngane Sossox Sëli bu ndaw Papo yaa ngay bëre waaw waaw Sëli bu ndaw en di siyaar mbokk internet Général TV ñu ngi leen di siyaar di leen jox wàccuwaay yi naan leen acca rek muy abonné ko waxee yéen a si mën a jàpp sama gars yi waaw de cent dix-sept mille abonnés sur YouTube nekkul lu yomb waaw di leen jaajëfal bu baax a baax mais gën leen cee di partager di aimer di commenter waaw waaw Fissel Isma Diop Sandiara sergent Cheikh Ndiaye si ko trouve bëgg naa la final encore Papongan Ngane jël papongan tànk ba Papo Ngane jël na tànk ba papongan na papongan ndombo agagul sel bu ndaw papongan, sel bu ndaw xam-xam def na ko Papa Ngane troisième finale successive troisième drapeau successif moom Papa Ngane Sossox waaw waaw la sëriñ sa mbër na làmbu ja loolu lañ leen doon sama gars yi fii ci kër sur Selikou Ndaw Boy Séeréer vainqueur point sur ordinateur Ndaw Ndour waaw waaw loolu lañ leen ada fiber of daga jahat mone kulon Ya silim ki maat chunga maage gam dagae